comme idée il faut nga financer ko donc toujours beau déggee honorable député bu wax idée Délen ko laaj toujours faut parce que le nerf de la guerre de toute idée c'est de trouver le financement qui va avec So paree si vous yaa ngi ko tënk tamit ci infrastructure Té infrastructure moy ndox moy énergie moy tali moy piste moy technologie je pense que c'est très important li ma bëggoon wax bëri na mais gis naa ne ñu ngi may def ay signe ci salle bi am ñaari interpellation yoo xam ne bëgg naa euh, sur le Préferlo xëy na ma ma pare ci Préferlo Préferlo wax ngeen dëgg c'est un programme de 380 milliards de francs CFA phase 1 c'est 166 milliards de francs CFA ñi ngi sécuriser le financement donc nous nañ en 2023 honorable député préfère l'eau dernier point sur le transport après ma parole le ministre des finances Nous a renouveler rapidement le parc des camions financement a fonds de garantie a mais man bima ci mbujé waxtan ak sama transport prix à la casse ak transporteur yi d'accord aguñ ci te ba léegi transporteurs yi gëm nañ ne prix wu euh, camion yi dafa cher loolu rek a ko téye mais financement ni yaa ngi fii garantie yaa ngi fi maa ngi